Ousmane Ousmane xase kooku noonu bu ko may mu dugg foofu. waaw. jawwari daa ko jiyal daa ko ci wér wàllu sàmm kan bi ñëw na. maanaam kuréel gi noonu. boo jëfee day màcc eh. waar kan la laaw ja. ca bëla bëla waaye maa jàpp la. ca bëla bëla. jeen baa ngi nii. koo mu ne askan yaa rek laa bëgg. koo mu ne askan yaa ma def ak ay bokkam. mooy bëgg jëkkër rek laa bëgg. ah tubaab kàlla ca bëla bëla. géwél ndaata géer naaj ko dima dama la sàmba jéeg baa ngi nii dorosin baa ngi ñëw saf saf pangaram li ma ko la yëngal boo yëngal saf sama saf nangal aboo di maa boo taar jërëjëf Serigne Touba dégguma dara Orang dégg daal de benn maala roy njëkkeem bu baax bi di bëgg référence def président Sall bëgg jël premier njëkk bi jox premier daa mooy Marème Faye waaw muy référence am jeeg baa ngi nii jeeg baa ngi nii ngeen ma Ah. Saya say mama nga mali. ni bokk saag bi nii. say mama nga mali ca masina surtout samba gila jegi kulu tengelaa la ba ni ma al pular ga origine ba sama ngi sama mani musulaɓe umbilinga kering roy bu baax bi di marem fay ngoy do koy la rek loxo bi la la fi la yow wa am sama jeeg baa yéen naw nga say gan waaw waaw waaye am nga seenu réer jërëjëf Serigne Touba yéen naw nga say gan waaye anga yéen de yéen nga di ah ngay ñëw na jërëjëf Serigne Touba ñëwal nii nga yes jeeg baa ñaajal jàll ñaajal jàll jàll nga paya nga ngóor góor fete na ko rey dama dàgg nga bil mbaar fete na ko rey aali ku ma njaagaan gaar fete na ko rey lekkaat kot bil mbaay nga pentu mbaay fete Balla Diop a ko jur Fat Fall Diaw Mbaaj Diop Khoudia Niang Seynabou Kébé aram Touré dorobe eh, bi abi ngone ma lo be sama yene ngone ngone ci mbaaj la ki ature e kalam xool dam la ne wax xew fi daa bëggoon ma samp bàyyi ma nga ndax ndax sa kër bàyyi amu ni sëg àll la ñuy dee nga payaa nga ngóor góor fete la ko rey dama dàgg nga bil mbaar fete la ko rey aali ku may jaakaan gaar fete la ko rey laykaat kon ba mbaay nga pentu mbaay fete la ko rey waaw waaw keroog lañ dem ba tudd Yaasin yan ko yóbbu ko joxoon ma keroog lan dem ba ku registré yan ko yóbbu jàpp waaye ku def day fàll ni wooye waaw waaw fàll bi ko jóg déggal li amarawa gay la ni wooye baayam waaw waaw amarawa gay la ni wooye baayam déggal li amarawa gay maa ngi kéwél ni wooye baayam maa ngi kéwél ñàng ba tóor ni wooye baayam ñàng oh. ba tóor aalewa gay la ni wooye baayam aalewa gay biro faali faa gay la ni wooye baayam biro faali faa gay jaasin faa gay la ni wooye baayam jaasin faa gay ba soon faaroon baasi taal do ko mayaale ko bu ko ko jubu yéen ngoone maa samba lab su caabe maa samba faari ngoone maa samba yette deele aala kuma jogo maay ma faari kuma daama tëx ba samaam balaa yow fukki balak ñaar taat ba suulum naat bi buur naam faal di ñaaxeen dema daal may setoo sama maram ba dëbbuma joojee jaay digge tabaar gannaan kalaw yaa suñu xor baay dëgg samba buurub jaar